dafay féexal xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete bu dee tribunal loo bëgg naa àtte ma tëj ma ci sa xol asalaamaaleykum mbokku auditeur ak auditrice yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal tey seen émission DK Beauty moo ñëw ànd fekk euh, waa équipe Allo Dakar TV seet si salon Ndiobène Kiné maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw man la Kiné Diop madame Diop borom coiffure. borom Ndiobène coiffure ñu xam fan la coiffure ngi ci sama parce que man Diop sante sama sante ma sax parce que xamoon que ko tuddé mo coiffure. donc ñu bëggoon xam coiffure fan la la dikkee nan nga def say jaar-jaar. lan la dikkee. waaw wàllum coiffure bi may gën a nekk xale la ma dikkee woon parce dama mës bëgg métier coiffure coiffeuse laa bëggoon doon yàgg na trop nag ma bëgg ko ba taxawoon ma dem Mbour dañ ci sama tante mu dugal ma ci benn salon bu nekk foofu ñaa maa ko boobu après laa fa jugee ñëw Malika ci Fadlaye def coiffure bi. bi ma amee jëkkër nag ci laa bàyyi léegi sama jëkkër nag moom ma poussé waat ci pour ma dem defaat euh, bi mu fayal ma formation ci école sénégalo bi nekk Kër Massar bu Moussa Faye foofu laa defee formation euh, ba ba tey jii li ma doon ma doon ko daal sama jëkkër daal moo tax ma delluwaat ci métier bi. donc bëggoon naa xam ndax yow doonu la woon wala danga si doon foowee di létt nan la nan la ñëwee. non doonuma ko fenn nag. mais amoon naa ku ma bëggoon di ko gis muy Fatlaay Mbéyelaay di ko xool ak Ami Collé ñoo ñoo nekkoon samay idole ba ndax ma bëgg métier bi gis nañ ni wàllum coiffure bari na Sénégal salon yi bëri nañ concurrence yu bëri na ma doon xool ma doon laajte yow nan nga koy dundee. waa salon yu bëri na concurrence yu bëri na mais man ragal ma loolu. parce que man Moussa Faye def na ma ma nekk professionnel li may def macha allah mën naa ko te ku ma defal rek di nga kontaan ba da ngay jël si waat moo tax ragal ma lool. donc fii ci Sénégal nga amee sa diplôme. waaw fii laa ko amee. donc euh, gis nañ salon bi macha allah yaaññi na yaa ngi defar lu rafet ñu bëggoon xam créativité boobu fan lay jóge ak lan moo wane lan moo wane sa particularité.

D'accord, nous ñu dellu une question ndax euh, yow bëgg nañ xam lan ngay def salon bi produit fan lay ak lan euh, nga def lu important nit ñi dinañ salon salon bi ngi def euh, nit fi ñëw am xew cérémonie wala ngay def ngay ñëw ah, ci da koy ci ba pare ñëw defal euh, maquillage bu rafet ak coiffure bu rafet dañ koy def fii ci salon bi soo ñëwee dinañ la defal pédicure poser le ongle poser le cil ba lépp nice boo bëggee fulaar dañuy def fulaar bu rafet ñëpp xam nañu si dañuy def xijaab euh, muur bu rafet loolu ñëpp xam nañu ko ci ñun daal ci côté yëpp daal lañuy lañ ñu génn tent bi nag moom ñoo ci taxaw moom jamono yi ñu toll nii ku sa greffage euh, ñaxe jarul nga jëndaat beneen ñëwoon Ndiobène Coiffure ñu defal ko mu mel ni bees ak couleur boo bëgg nag couleur bu tent bu lu bujj ne am na Ndiobène Coiffure tent original. te gis nañ ni tendance bi léegi cheveux naturel la yow lan ngay proposer say clientes ci ay affaire cheveux naturel. waaw cheveux naturel sax ñu ngi si yoon bi dañuy jaay cheveux dañuy jaay cheveux di jaay maquillage yëpp ndax produit teint yaa ngi ni dañ koy jaay. ont brosse ni séchoir dañ koy des dañuy def euh, entretien dañ koy def te aussi des euh, ont bëgg nga ko ci ci ah, ci la am ndax des euh, ngi Espagne di États-Unis di Vous Chine ont bagage mu ngi fu ci bi ont gis rek gis des Vous rek la am ñu gis cheveux yi qualité yi ont nañ ngay lan ngay wax say client ci cheveux yi ndax. waaw qualité yi bari nañ te wuute nañ mais original bi ba léegi moo ngi fi bëgg original dëgg bëgg lu baax am garantie ñëwul fii ci Ndiobène Coiffure. jigéen yi ñoo ko déggandoo képp ku bëgg lu baax ñëwal fii si Ndiobène Coiffure dañuy faral di gis nii du góor du jigéen kese moo bëgg lu baax ndax yéen a ngi defaree ay affaire pour bu góor yi. waaw góor yi ñu ngi fi. parce góor bi fi ñëw su bëggee watu nañ la wat wat bu rafet bu service sax am nañ ay euh, pompe pour góor pour euh, pour ñi nga xamante ni dañuy yar seen karaw ah, doo ñëwee am na shampoing pour am na diw bopp pour xamante ni même ñi yor ay lox sax soo ñëwee am nañ ko. Ah, kon da ngeen di def ay lox. si doo ñëwee sa lox dañ koy toppatoo ba mu rafet am nañ ay produits yoo xam ni. donc suy dina rafet dina am éclat aussi dinañ ko fixé ba mu dëgër am na fi góor su ñëwee ñu raxasoo ko tankam dafa ko pédicure ah góor yi daal ñoo fi ñoo ngi leen di ñu gis ni si wàllum coiffure parfois ngeen am ay jafé jafé lan moko waral té noké dundé jafé jafé yoyu wa xam nga àdduna moom loo gis du nekk day am lu neex am lu na naqari su jafé-jafé ñëwé du ñàkk métier bu gis wala lépp looy liggéey dina am jafé-jafé di nga si am la neex mais du fekkee bëgg baag bëgg-bëgg bi mu ngi fi moom jafé jafe du doon problème ñu ngi koy gérer bu baax. yéen koy gérer bu baax sax. donc euh, tey ma ñëw gis fi lu rafet ngeen di maquiller di coiffer bu bëggoon xam ndax da ngeen di dem si ay événements wala ngeen def ay représentation de coiffure seen création.

raison yëpp dañ fiy dem. donc yamul dakaar kese. déedéet yamul Dakar yamul Maris na Kër Mbaye Fall soo fa demee di nga fa fekk Ndiobène Coiffure Thiès région yëpp la ñuy dem chaque jour ñu ngi dem mais ma euh, man salon bi sax li ma fiy toog bariwul ndax fu ma fekk ñu ngi may woo maa ngi def déplacement maa ngi ci pour ñëpp nag bàyyiwuma kenn foo ma woo rek ma wuy si la. macha allah gis nañ yaa ngi def lu rafet. wa allo Dakar TV kontaan nañ Ndiobène Coiffure fan la nekkee ci ci Dakar. waaw Ndiobène Coiffure mu ngi nekkee fi Mariste ci école japonaise bi fofu la nekk So ñëwee école japonaise bi rek Coiffure fofu la nekk. am ngeen numéro. am nañ numéro numéro WhatsApp Instagram euh, mu ngi Facebook bi. fépp daal foo bëgg foo dem nga numéro bi 77 la 534 33 47 ñun daal ñu ngi fii ak euh, prix yu abordable lépp loo am doo ñëwee Ndiobène Coiffure nañ la defal ba nga kontaan parce que jàppalante la rek ak waxtaan maa ngi leen di xaar nag. léegi lan mooy ce mot de remerciement. waaw man maa ngi remercier ñëpp di ci jiital sama yaay parce que daf ma jàppale trop daf ma jàppale commencement ba fin lii yëpp mën naa ni moom la. di ci teg euh, sama borom kër sama amoore Diop parce que daf ma jàppale dooleel ma Diop bi may jàng mën naa ni sax du lu ma def moom moo may corriger su ma defee lii mënu defee ko nii lii baaxul di ma jàppale subaangoor gu dégg bëccëg ma jàng ba pare mënu ma salon bu toj laa ubbi waaw kay loolu lépp daal Diop la moom itam maa ngi koy remercier bu baax di remercier sama goro parce que mënoon xatal te xatalu parce que su bëgg woon mu dem rek du dem moo ci jàpp bu baax ñaanal ma jàppale ma ba léegi sama njëkke bii moom bi may jàngi métier moo may andil añ ba léegi kooku xam nga dafa la jàppale ko baay bi moom laa doon jël ndax dañu ma woon man ak yow bu mu jeex mooy kii nii toog di ndey kumba ata mu ngi noonu xam ngeen ata bu baax moom moom sama lépp moom la man lu ma def ata dina ko xam moo mën naa ma defal lii bàyyi lii commencement ba fin atta moom may jàppale ak sama xale yi xam naa après di nga leen jël parce que bi may soog a commencé métti woon na mais Sira ak Fama ñoo nangoo taxaw parce que xamaguñu lu ñuy am te nangoo ñoo nangu nañoo taxaw liggéey ak man kon boog maa ngi leen di sant di leen gërëm nga xam ni lépp daal du ma leen mus a fàtte daal incha allah kontaan naa trop di sant ñëpp. di gërëm ñëpp Moussa santu maa ngi koy sant mooy suñu directrice directeur école bu école Sénégalo maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax euh, di sant sama tante Makhoudia parce que ñi ma commencé métier bi il faut ma gërëm leen sant leen parce que bala nga ni benn da nga naan ñaar bala nga naan ñaar da nga naan benn te benn boo gis nag ci am na ku mu commencé mooy ci lépp ci moom la commencé naa bu baax di sant waa Dakar di sant euh, ndaxte di sant ma ñaane nga xamante ni mooy magu bu naa ma lii yëpp moom la de ndaxte su du woon ak euh, ma yaakaar naa tey doo leen fi ñëw. bu naa suñu directeur ñu ngi koy nuyu. waaw kay ñu ngi koy sant di ko gërëm ci OFTM ci baax baax bu mu baax di jàppale nit ñi rek moo ko tax a jóg yàlla na ko yàlla jàppale bu baax ci barke xam Mouhamed yàlla gis na lépp daal yàlla na yàlla fay ma yi maa ngi koy nuyu di nuyu Yafa Yafa chéri Tafa Diop madame Diop lépp ñoom la commencé macha allah kontaan naa bu baax fàttewuma kenn nag kulim juum nuyu naa ñëpp xam nga Kiné moom ñëpp ko bëgg Kiné Kiné ñëpp la les dames de Ndiobène maa ngi lay nuyu bu baax waaw kontaan naa trop ci yéen merci. donc internet yi ñoo ko gisandoo képp ku bëgg lu baax. maquillage coiffure cheveux naturels képp pourquoi am cérémonie mon nga ñëw fii ci salon bien coiffure ci Kiné Beauty mu defaral l'eau lu amul fenn lu amul fenn incha allah donc Kiné maa ngi lay remercier bu baax waa équipe allo allo Dakar ñu ngi lay remercier kontaan à lool ci maquillage bi tamit merci beaucoup di nuyu sama caméraman ak sama monteur Bara Seck ak Conté euh, on se donne euh, rendez-vous ci une émission DK Beauté dammeel bëgg naa la fasal nga ma samay bu mu xool am